tey nag dañoo ànd ak délégation bu rëy bu directrice générale bu CNO directeur yi nga xamante ne ñoo nekk ak moom ak équipe cadre bi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñëw pour barkeelu ci bés bii nga xamante ne am na tàmbale ko d'abord ci li nga xamante ne mooy comité d'organisation bi indil ko

pour jàppale ñepp ñi nga xamante ñom ñogi ñew ci magal gi waye bima japp ne mom mo upp solo puisque bobu barkeelu rek la woon mais bima japp ne mom mo upp solo ci taxaway bi nga xamante sen seen o ñëpp ràññee ko nak ci euh, entreprise bi nga xam société bi nga xamante mom moom lañ dénk ci rewum tax yi ñu wara jël ndox mi joxé ko mu doon ndox mu sel ñu joxé ko euh naam xam nañ ne fii ci Touba beneen société moom moo yore wàllum joxe ndox mi waaye dañoo ne bésum Serigne Touba bi duñu ko bàyyi kenn dañuy ñëw ca la nga xamante ne moom lañ ñu gën a xamee la nga xamante ne président de la république moom la bëggal nammal ko Sénégal yëpp mu nekkoon li taxoon mu dem wuti entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xarañ ci àdduna bi mu indi leen ci biir réew mi pour ñu defaral Sénégal ndox mu sell te te te te te walangaan partout loolu it dinañ lëkkaloog euh, euh, société ba nga xamante ne moom moo yor ndoxum Touba indil ko xam-xam ba nga xamante ne seen o xamee nañ ko ko à travers Suez bi nga xamante ne moom mooy partenaire bi waaye it dinañ ko pour pour euh, ci xam-xam bi pour yokk li nga xamante ne mooy sellum ndox mi waaye it xam-xam ci nan la ñuy def pour li jëm ci ay fuite ñu mun koo teel a détecté defar ko ba fuite yooyu nga xamante ni mu ngi doon dem di doon perte ñu yaxanal ko ba dugal ko ci biir réseau bi ba ku ci nekk mën cee jot ca heure ba nga xamante ne war nga cee mën a jot jàpp naa ne loolu moom moo ëpp solo loolu nag ñoo ngi sant yàlla bu baax ba ñu rencontré porte parole di xalif général de Mourides sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké sant nañu gërëm ñu ci loolu waaye it ba ñu dajee ki nga xamante ne mooy xalif général des Mourides

am ci it yu baree bare yoo xamante ne ñoo ngi ko ciy dox waaye mu bëggoon laa ñaan rek ci lii nga xamante ne moom moo ñu indi muy ñëw barkeelu ci bés bu toll nii ma ñaan la nga may ma bu ñu dajewaatee beneen yoon ñu yaatal ci lépp li nga xamante ne jël nañ ko ci ay jumtukaay pour régler définitivement li nga xamante ne jëm na ci ndoxum Mbàkke boobu ak li ko wundu yëpp ñu ànd ceeg autorités yi nga xamante ne ñoom lañ ci war a àndal yëpp. pour loolu ñu mun koo régler. kon nag bu doon jugee nga xam ne forage bi mu bëri bëri bu réseau bi baaxul tam du sotti kon léegi nag ci seen taxawaay léegi ci seen jëf li nga xam ne barkeeloo ngeen ko ci marché yi nga xam ne sëriñ bi doon. ñoo ngi taxoon daanaka ci ñoom ñoo ngi ci juróom bu baax di yi yaakaar tax nguuru Sénégal am nañu ko yàlla jàppale leen ba yaakaar bi nga xam ne moom suñu borom ba lépp nga motul ndax ndox moom da ngay ci ci loolu yow si góob boobu yow mu lay jël sa tànk ndax am nañu sa tànk ci digg bi am nañu sa dugub sëriñ bi ak sa poson am nañu day ñaan tamit ba itam solution yàlla moo ci ci bàq suñu jëloon salaamaaleykum